baatu askan wi yéenekaay bi ne candidat yi kay tàmbali nañu ay dige nag jëmale ko ci kaw askan wi ba tey lu jëm ci élection présidentielle yi yéenekaay bi di réew mi quotidien ma ngay xam le ne Idrissa Seck moom ma nga seeti ju woon acteurs yi yëngu ci wàllu napp gi moom candidat bi nag ma ngay sàkku ci yeneen candidat yi ngir ñu amal campagne bu dal te bañ a ànd ak benn fitna yër leen bi la yëglekaay révelation dikk daal ne fukki nappkat ak juróom-ñeent yi nga xam ne rek ñoom la conseil constitutionnel tànn ngir ñu dem ci élection présidentielle yi nag sànni nañu seenuk mbaal 24 heures di ko feelu ne tàmbali nañu nag campagne électorale bi nga xam ne rek moo soxal élection muy Khalifa Babacar Sall Déthié Fall Bassirou Diomaye Faye ba ci Idrissa nag yéenekaay bi ne kenn ku ci nekk nag ma ngay ay bëgg-bëggam jaarale ko ci ay slogan bés bi le ne tàmbali nañu campagne électorale boo xam ne rek daañu ko amal ci diirub ñaari ayu bés gendarme yi nag démb def di am ci Ba waroon na koo amal ak Maron du Feuille caravane bi nga xam ne rek moom la Khalifa Ababacar Dakar Sall doon amal nag dañu ko mujjee yàqate ñuy waxati nag daal di gis ay jàppante yu doxoon ci diggante militant Benno Bokk Yaakaar ak yu Bassirou Diomaye Faye Le Quotidien yëglekaay nag di ñu xamal ne candidat yi jamono ji nag jël nañu datub ñaar fukki fan ak ñeent fas yéene ca soobu ngir amal jongante njiitu réew mi nag déclaration yi di jolli ci jamonoy campagne bi Bassirou Diomaye Faye nag ñu xañ ko ab temps d'antenne am ca RTS ay accrochage daal di am ci diggante waa APR yi ak ñii di partisan Diomaye Faye ca Parcelles Assainies tàmbali campagne élection présidentielle yooyu yooyee ca parcelle nag yéenekaay bi ne waa Pastef moom woneete nañ seen bopp Walf Quotidien nag dellu siwaat ci temps d'antenne bi nga xam ne rek dañu ko bañal kii di Bassirou Diomaye Faye ca RTS moo waral ba yëglekaay bi nag di xam ne ni moom ma ngay jox kàddu nag kii di Bassirou Diomaye Faye info yëglekaay ma ngay xam ne nag ne gannaaw ba ko RTS tere nag ngir mu amal ab temps d'antenne am moom candidat bu Diomaye 2024 assuré na ab lancement campagne am ca Parcelles Assainies ca ba présenté programme am jaarale ko ci ab caravane boo xam ne rek foo sax ni mbàttu ndax mbooloo mu takk mu fa teewoon ouverture campagne électorale boobee nag enquête yëglekaay moom ma ngay xam ne ne nag ubbi nañu ko ci ay dóorante ki defante ci diggante candidat ak seen ay militant Amadou Ba di xam le ci biir yëglekaay bi ne Sénégal nag ku jegi fi nekk amuñu xam-xam les ko yëglekaay dellu siwaat ci ndox teelu campagne ub candidat APR boobee nga xam ne rek ay naataangoom ñoom ñëpp ko woon ginnaaw amul benn responsable boo xam ne rek teewoon nga ca ba muy fësal programme am moo xam responsable nationaux wala locaux yi nag ñoom ñëpp dañoo lem seen loxo lool meeting ouverture bi nga xam ne rek moom la waroon a amalee ca Mbàkke ñu daal koy dàq ba jëmmi jamono ci jamono joojee nag Khalifa Babacar Sall moom ma ngay dal ci kaw coalition Jomaay ak ñi koy jàppale Idrissa Seck nag génn ci pat pataaral gi mu nekkoon mu fekk lieutenant yu Bassirou Jomaay Fay nag ñoom ñu ngay def seen kéem kàttan ngir gën a am kóolute ci askanu Sénégal les ko yëglekaay ne campagne bi door nañu ko waaye ci fitna lañu ko tàmbalee ca diggante ñiy jàppale Amadou Ba ak ñiy jàppale Bassirou Diomaye Faye Dakar Plateau nag caravane bi nga xam ne rek moom la Khalifa Ababacar Sall doon amal nag dañu ko mujjee attaqué addu ci leneen mu di tàggat yaram ak Rewmi Sport nag ma ngay xam ne nag lu jëm ci wàllu équipe nationale Aliou Cissé ak waa fédération sénégalaise bu football nag ña ngay taxawalaat ab contrat bu yees jëm ba atum 2026 yëglekaay dellu soir ci Tottenham mi nga xam ne